alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem mbokki jullit yi ñu xam ne màkka ab dëkk la bu tedd bu màgg boo xam ne borom bi tabaraka wa taala na ko ay jagle yu baree bari jagle yoo xam ne lu waay mën mën a bind wala lu waay mën mën a wax lott nga ci mën a lim jagle yooyee nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala na ko makkatal mukarram kon taxawaay bi jubluwun ci lim li nga xam ne lépp moom la yàlla jagleel màkka waaye dañ ci lim lenn ngir fàttalikoonte ko ak mbokki jullit yi rawatina mboolem ñi nga xam ne dañoo am yéene yi fas yéene dem ca dëkk boobee walla e, ñu waajal ko ba jekk war caa dem ndax sàkku xam-xam waxante woon nañ ay yoon i yoon ne tëkkuwut ci ne ki mbir ma teew rek moo koy sàkku waaye la aju cal jaamu yàlla nga jàng ko balaa agsi moo gën kon bokk na ci jagle yi sunu borom tabaraka wa taala màkka moo di néegam bu tedd ba fa la nekk néeg bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala dafa wax ne dama ko def mu doon dellukaayu nit ñi maanaam fu ñu jóge fu nekk ginnaaw ay jullit lañ seen xel du fa jóg doon it béréb boo xam ne seen kóolute ak seen sécurité fa la nekk doon béréb boo xam ne palaasu taxawukaayu Ibrahima ba mu doon jullee fa la nekk ba suñ jonni tey mu doon béréb ba nga xam ne moom la digaloon moom suñ borom tabaraka wa taala ak doomam ja Ismail ne ko laabal leen néeg bi ak li ko wër kon loola makka laabal ko ci lépp loo xam ne lu koy salteel la ci tilimi zahir ak joj baatin tilimi zahir muy lépp loo xam ne xeetu salte la tilimi baatin muy lépp loo xam ne xeetu xéram la wala lu ñuy jaamu lu dut sunu borom tabaraka wa taala mu ne ko laabal leen ko ba tax ñi ñëw di julli si wala ñuy liatikaaf si suñ dikkee fekk mu laab ba aw xéram du fa jege borom bi tabaraka wa wax ne néeg boobu mooy néeg bi ñu njëkk kër tegal nit ñi ci kaw suuf ñi di ko jaamoo yàlla ni nga xame ne bayt ba ñu tuddee al baytul maamuur mooy néeg ba ñu tegal malaayika yi ca asamaan ñi di fa jaamu yàlla kaaba gi mooy néeg bi ñu tegal doomu aadama yi ñi ñëw di fa jaamu ci sunu borom tabaraka wa taala kon néeg boobee nga xam ne néegub yàlla la doon néeg bi njëkk a tegal doomu ci kaw suuf mu di fa jaamu yàlla dëkk ba mu nekk kon dëkk la bu màgg boo xam ne am na orma ñaareel ba moo di makkal mukarrama jullit bi war na koy bàyyi xel jamono yu nekk ndax mooy seenu xibla fu nit ki mën a nekk ci àdduna te di jullit boo dee julli màkk ngay dàkk léegi la nga dégg ay kuréel yu réer sax bañ naan dañuy julli di jëm ci beneen béréb waaye xamal ne jullit moom ak julleem màkk lay jëm du jëm feneen màkk mooy jublukaayam mooy xiblaam su dee dund ak su dee itam ndax su faatoo ba dugg ci xabroom kat bañ koy rob bopp ba màkk lañ koy jëmale kon mooy sa xibla booy dund mooy sa xibla itam boo dee bañ lay rob ci bàmmeel bokk na ci jagle yooyee mooy aj aj ci shariatul islaam amul genn gu ñuy aj di ko defi gudul ga jëm màkka fépp fu doomu aadama jëm ñu naan day aji di ko tuddee ay pèlerin su fekkee pèlerin li muy firi mooy kuy aji xamal ne loolu ay caaxaan la aj moom ci lislaam màkka rek la jëm moo tax borom bi tabaraka wa taala walillahi ala nnaasi xajjul bayti maanaam jëmmi néegu yàlla ba nekk fa màkk mooy tax nit jóg di aji waaye du jóg di jëm feneen bokk na ci jagle yooyee moo di tawaaf muy wër néegam boobee dong la shariatul islam daganal nit te di ko wër wër goo xam ne wërug jaamu yàlla la wër goo xam ne wërug jaamu yàlla ku doon wër dara jublu ca leneen lu bokkutu jaamu yàlla kooku yoonu sharia newu ci waaye damaa yéene jaamu yàlla di wër dara lu bokkul ak kaaba ga loolu shariatul islam xamu ko du daggante su boobaa day xaraam mën naa dem sax ba àgg ci bokkaale wala yaasu billah moo xam nit ki ak garab lay wër moo xam ab xabru lay wër moo xam lu mu mën a doon lu mu def ci xelam jàpp ne lu sell la ba des koo war a wër ngu di ko wër te du kaaba ga xamal ne kooku ci ay caaxaan la nekk te la muy def mën naa àgg ci bokkaale wala yaasu billah bokk na ca jagle yi borom bi tabaraka wa taala jagleel màkka muy bëgg màkk mu nekk ci sab xol màndarga la ci ne ngëm yàlla mi ngi ci sa xol bëgg ko mu ne ci sa xol ngay nattable kañ laa fa war a mën a dem di def ay pexe di ko xalaatal loolu màndarga la ci ne ngëm yàlla day ma nga ca booba xol waaye bañ ko nag ba yamale ko beneen dëkk bu dul moom wala sax beneenu dëkk gënal la ko ci kaw suuf gënal la màkka xamal ne kooku màndarga la ci ak càggante gu bon a bon goo xam ne mën naa àgg ci kéefër kon màkka mooy dëkk bi gën a jullit ci kaw suuf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak li madinay tedd tedd ak li mu ko bëgg-bëgg ba mu ko génn ba mu koy génn daf ne yàlla day génne nga ma ci dëkk bi nga xam ne moo la gënal ci dëkk yi te gënal ma ci man itam kon mooy dëkk bi gënal yàlla moo gënal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne dëkk yonente ba dëkk bu màgg la boo xam ne dana ñëw ci kanam ne moom it ku am ay jagle la suñuy lim jagley màkk yi da nga gis ñu tuddaale ci yenn yoo xam ne Madina daf caa gaale waaye teewut nag màkk di su ko tëkkale ak benn dëkk loolu la suñ borom tabaraka wa taala dogal moo tax jullit bi moom faw ak bëgg màkk day nekk ci xelam ci xolam ndax sun yonentu bi yàlla Ibrahim moo ko ñaanoon nee doon fajal afidatan min annaasi tahwi ilayhim ñaan yam doon ñaan suñu borom tabaraka wa taala ci mbirum màkka daf caa boole mu ne ko xoli nit ñu baax ñi yow yàlla yal na nga ko def ñoom ñépp ñi jublu màkka bëgg ko kon ñaan googa defe naa ne ñaan gu nangu la lam ca teg mooy warzuquhum min asamaraati wërsëgal leen meññet ndax màkka béréb la boo xam ne menn meññet du fa ñore loolaa tam naa ne ñaan ku nangu la amul menn meññeet muy ñor ci àdduna moo xam day ñor noor wala muy ñor nawet wala waxtu wu mën a doon ngay dem màkk te doo ko fa fekk loo meññeet mu nekk sa xel rek boo dikkee ci marché bi da ko fa fekk te nag dara du fa ñore ba léegi lépp ay doj la mbay moom du ñore màkk kon na ñaan googa nangoo ba meññeet mépp sunu borom tabaraka wa màgg màng ko mu ñëw màkka noonu la ñaan ga nangoo ci képp kuy ab jullit sab xol day aju ci màkk nga bëgg ko koo xam ne yëg nga ci sab xol leneen sooy ba nga xoolaat sa mbir te xoolaat sa imaan bu baax a baax moo tax ibnu kasir day wax ne borom bi tabaraka wa taala dafa def ruux yu baax yépp ruux yu baax yépp dañuy jublu màkk dañ ko bëgg te nit ka lu mu fa dem dem ku baax ka lay wax de nee na lu mu fa dem dem suy génn rek xel maa ngi ci dellusiwaat su doon at mu ne mu dem sax lu tax mu doylu bokk na ci jagle yi sunu borom tabaraka wa taala jagleel dëkk boobu moo di def fa jëf ju baax dañ koy ful dañ koy yokk waaye nag def ca jëf ju def fa jëf ju bon it mooy safaan ba day yokk dañ koy yokk ful ko ba mu yées ci jëf yu bon ya bokk na ci li ñuy firndeel ne jëf ju baax ja dañ koy yokk moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jàkka ju mën doon ci kaw suuf julli fa julli julli ci sama jàkka ji fi Madina gëne na ko junni yoon te jàkka yi ci kaw suuf yépp julli goo fa julli boo jullee ci jàkka yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee gëne na ko junni yoon mu ne ba mu des nag jàkkay màkka ndax jooja boo fa jullee gëne na julli yi ca des téeméeri junni yoon kon loola ngëneel la loo xam ne lu jéggi dayo la kon jaamu fa yàlla dañ dañ koy ful ful koo xam ne yàlla rek moo xam nu mu toll moom mi yor tuyaaba waaye mooy fa yàlla it nag noonu la dooni musiba borom bi tabaraka wa taala nee na képp koo xam ne wa man yurid sax la wax koo xam ne namm na wala bëgg na wala fas na yéenee def foofa lu baaxut te defagu ko sax borom bi tabaraka wa nee na danañ ko mosal mbugal moo xam ne mu metti la kon waxul ka ko def ba noppi taxul ñuy wax waaye képp koo xam ne jublu na ko aj tax laa jóg nga dem fekk ay caaxaan moo nekk ca xol ba wala defi fa lu bon wala lor fa sax ay bakkan ndax léeg-léeg mu am lum mu ca mën a doon nee na ka ko bëgg rek mbugal mu méttee métti mi ngi koy xaar abdullah ibnu abbas ci xadis boo xam ne buxaari moo ko génnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga fay wax ne ñi yàlla gën a bañ ci nit ñi nee na ñett la yàlla gën bañ ci nit ñi ñett la kenn ka nee na mooy mulxidun fil xaram koo xam ne dafa dem ba ci xaram ba fañ war a jaamoo yàlla fa tawxiid war a taxawe ci xol yi nee na mu di fa bokkaale kooku nee na ci ñu yàlla gën a bañ la bokk léegi-léeg nag mu dal doomu aadama yi léegi la nga gis koo xam ne aje ko tax a jóg waaye buy aji ak bu ñëwee ba àggal dana fa def yoo xam ne ci xeeti yu ñuy tere ak xeeti bokkaale yoo xam ne kenn xamul nu mu toll fekk la koy waral benn mooy réer wala dër bopp réer mooy ñàkk jàng dara ci diine ba xam ko dër bopp mooy ña nga àndal ñi doon boromi xam-xam ñu di la wax nga ne ah ñii di moom nii rek la ñuy waxee waaye sun mag ña nangam ak nangam nee lañ dégge ñoom loolu mooy dëgër bopp loolu mooy tax nit ki dem ba ci béréb boo xam ne ak sell lañ fa war a jële war fa sippikoo ci ay bàkkaar faf nit ka yanoo fa ay bàkkaar yóbbaale kon mulxidun fi lxaram keneen ka ca des nee na mubtaqin fi lislaami sunnat aljaahiliya koo xam ne mi ngi ci biir lislaam ba noppi di dund ci biir lislaamam jooju ak ceddo loolu da koy gis day feeñ même ci ñi nga xam ne dañuy bëgg a aji léeg-léeg ma feeñ ci seeni wax ak seeni yéene waaye yaar yi ma waxoon rek moo koy waral benn bi mooy ñàkk xam gu maasale ak ak dëgër bopp léeg-léeg gis koo xam ne buy bëgg a dem di yi la muy wax sax mooy dañuy siyaare ji sang ba kooku réer moo koy waral siyaare ji sang ba taxulaa jóg loola ca la te loolu nag mën naa yàq yéene kii aji ñu xam ne siyaare ji wul yonent ba jullit bi na xam loolu la ko yëkkati mooy defi farata joo xam ne yàlla moo ko farataal ci moom te ca màkka lañ koy defe waaye defewuñ ko madina rafet na nag ci ku aji dugg ci réew moom yi bala nga fay génn nga siyaare yonent bi julli fa jàkkaam ja julli ci moom alayhi salaatu wasalaam loola moom moom lu jaadu la ci jullit bi moo xam da koo mujje moo xam da koo jëkke nag waaye mu xam ne loola bokkul ak aj ga su aji woon ba delsiwaat te yàlla dogal mënta jàll Madina kooku yàqul dara ci ajam su fekkee ajam baax na loolu jullit bi aji da ko war a xam kon yéene yi ak li ñuy wax ci làmm yi ñu seetlu ko di ko bàyyi xel léeg-léeg nit ke jamono yi muy génn di dem ak su demee ba noppeek la muy def ci xeeti xarga fuufa loolu moo koy delloo ci ceddo te fekk la mu doon def yëfi lislaam la di génn ñu fabum ndox topp ci yow di sotti loolu nit ñi tàmm nañ ko lool ñu bari def nañ ko aada ñenn ñi dañuy fab ay pepp ak ay yëf di suy lenn lu ci nekk xeetu cedd la waxoon ne am na luñ ci jublu ñenn ñi dañuy rëdd juróom-ñeenti rëdd benn ñaar ñett ba muy juróom-ñeent mu ne su ma dellusi fukkeel ko daal dem yooyu yëpp dund ak ceddo ci biir lislaam la jullit bi na ko wattandiku kon ki nekk ci biir lislaam rawatina jaamu yàlla goo xam ne lépp tawxiid la kooku na waxtandiku leneen jaxasoo ci lu dul loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi ne ñett ñii yàlla gën bañ kenn ki mooy ki dem ba ci mu di fa dund ak bokkaale ki ci des mooy kii dund lislaamam di dundaale ak ceddo ci biir ak ceddo mooy ña doon dund dund jaahiliya lañ doon def ki ci des nee muy mooy koo xam ne dafay tuur dereti nit koo xam ne yàlla tuuroowu ko deretam maanaam koo xam ne dafa xaraam xadis boobu bu mat a xel la bokk na ci jagle yi suñ borom tabaraka wa taala jagleel màkka mooy def na ko muy ëpp dëkk boo xam ne bu amul dal la bu am sécurité la amidan la ko tudde haada al balad la ko tudde ñu yàlla keppaaru ngëm yàlla googu ak keppaaru kóolite boobu muy sécurité boobu fuñ toll fu nekk ña nga koy yëg ña dund ca biir moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa wane ne bokk na ci kéemaanam yi mu ne awalam yaraw ndax gisuñu anna jaalna xaraman aminan ne nun defar nan benn xaram muy màkka ak kaaba ga la ko wër mu doon loo ne lu am kóolute la wa yutaxatafu nnaasu min xawlihim nee na te boo génnee rek musiba maag ñàkk sécurité bi mi ngi ci àdduna boo jaar fu nekk ñàkk sécurité bi da koy yëg daf lay fàttali benn mbokk américain ba nga xam ne bañ koy laaj lu ko tax tuub dafa tuub ñëw di jàng lislaam biñ ko laajee lu tax mu tuub moom boroom xam-xam la boo xam ne ci ña doon liggéey ci pétrole ba looloo ko indi woon Arabie Saoudite mu dib médecin bu mag nee na dama ñëw xool gis ñiy wecci xaalis ñi toog ci béréb boobee di wecci xaalis ma xool gis xaalis yi leen wër toog ci mbedd mi teg sa taabal juugub dollar bam ne ca kaw juugub riyaal bam ne ca kaw juugub CFA bam ne ca kaw nit ñi di la romb di dem ak ñëw di wecci ku te kenn laalu la nee na ma xalaat loolu xalaat man sama réew lan lañuy ñuy financé ci ay milliards ci dollar par at ci sécurité te boo taxawoon ci mber mbedd génne ab dollar waxuma ne dañ koy fëkk waaye bootul dañ lay rey ba noppi door ko fëkk nee na ma xalaat ñaari mbir yi comparé leen ma ne li indi lii loolu moo war a dox ci kaw suuf nee na mu tuub looloo ko dugal ci lislaam kon bu waxee sun borom tabaraka wa taala ne xanaa gisu leen ni man de indi naa dëkk boo xam ne ak dala fa nekk ak sécurité te nit ñi ña leen di këf soo génnee soo génnee dëkk boobu loolu kéemaan la goo xam ne jullit bu fa dem bu nekk xool lañuy dund génn dem ca sam réew ak foo mën a dëkk xool lañ fay dund lañ fay dund da nga gis ak soree goo xam ne am na lool ci sécurité ba nekk foofu te doo wax de ñee dañoo ami polise yi ñii amuñu ko wala ñee dañ ciy financé ñii financé wuñ ci déedéet loolu amut waaye régime ba fay dox mooy bi yàlla bëgg ci kaw suuf nga xam ne bu doxee ak dal day am jàmm day am kon nag loola lu mat a bàyyi xel la borom bi tabaraka wa taala bokk na ci jagle yi màkk mooy moo ko aaral boppam lu jamono naqari naqari ak lu mu bon bon bu demoon ba nit ñi sax sàggan wala ñu dellu gannaaw ba la leen war ci seen diggante kaaba ga ak màkka defuñu ko borom bi tabaraka wa taala dana taxawal aaral ko boppam nam ko defe woon bu jëkk ca ka jógoon yor ay ñeyam génn ko armée ne day dem màkka bu demee day toj kaaba ga bañ xamee ne lam andil nit ña nag moo leen ëpp doole borom bi tabaraka wa taala moo ko yebalal lu ko ëpp doole ay picc yoo xam ne ay jumi sawara lañ yor di leen ko sànni ñuy dee ñoog seen i ñëy ba mu jeex loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala wàcce saar woowu ñuy wax suuratul fiil ñuy saaru ñëy bokk na ci jagle yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala jagleen na ko màkka beneen dëkk amu ko mooy daganul ci benn jullit wala ci doomu aadama sax muy faj aajoom dem wanag dem ca toilette ba di jublu màkka wala mu di ko woon gannaaw ñaar yooyu dañ koo tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo tere ci xadis yoo xam ne yu wér la donte nag boroom xam-xam yi nee nañ su fekkee dafa nekk ci biirub duus kët boo xam ne dafa am ay miir yu ko wër su boobaa àtte boobu mën naa yëkkatiku waaye ki nekk ci àll boo xam ne daal dara waru ko xaraam na ci moom muy jublu màkka wala ma di ko wan gannaaw su fekkee ne day faj aajoom moo xam aajo ju mag la wala ju ndaw bokk na ci jagle yooyu sunu borom tabaraka wa na lépp loo xam ne xeetu rëbb la ci biir màkka su la petax romboo nag su la lëj romboo nag lu la mën a romb ak lu mu baax baax ak lu mu xéewali xéewali ak lu mu suur suur da koy romb dem saw yoon kenn du ko laal la réer itam noona loo dajeel mu réer ci màkka doo ko for lu dul su fekkee da koy for ngir wone ko su fekkee loolu la moom mën nga koo for jox ko ña nga xam ne lu réer ñoom lañ koy jox su boobaa loolu du wàññi dara waaye nag la gën a maandu mooy romb ko dem loola mooy la gën a maandu bokk na ci yi ko sunu borom tabaraka wa taala jagleel boole ko ak madina ak baytul maqdis muy nit ki dagan na mu jóge ci am réewam takk ay bagaasam jublu ñetti jàkka yooyu yi jum ci jublu loola day dagan kon suñ ko laajee foo tukki jëm day wax ne jàkka jaama tax a jóg su boobaa loola day dagan waaye jeneen jàkka ju mën a doon ci kaw suuf nag daganut daganul nga takk say bagage fenn jëm ci jàkka ci àdduna ju bokkul ak Màkka ak Madina ak masjidul Aqsa nga ne jàkka sangam moo ma tax a jóg moo xam jàkka jooju jàkkee kese la wala jàkka ju làmboob xabru la wala leneen lañ fa def du dagan mukk loola tax laa jóg moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko tere moo ne kenn du takk say bagage jëm ci jàkka lu dul ñetti jàkka yii sama jàkka gii fi madina ak jàkkay màkka ak almasjidul aqsa jëneen jàkka ju mën a doon jëne nag jullit bi mën na faa julli mën na faa def leneen waaye nag takki bagage ngir jublu jàkka ja ci boppam mu tax laa jóg nga xam ne jàkka jii moo tax nga jóg kooku mënta nekk bokk na ci jagle yi mooy sunu borom tabaraka wa taala jagleel na màkka ak madina mooy noon bu bon boobu ñuy wax dajjaal nga xam ne ak dikkam fitna la yonente bi sallallahu alayhi wa da daan muslu ci dajjaal bu masa ci biir julli sax da ko ci daan def di dénkaane jullit yi ñuy muslu ci moom di wax ni amul benn yonent boo xam ne mas naa ñëw ba dem lu dul daana wax aw nitam muslu leen ci yàlla ci dajjaal nit la koo xam ne bu ñëwee fit doomu la moo xam ne bu ñëwee fitna lay indaale doon wax ne maa ngi ñaan yàlla mu bañ leen faa fekk la daan wax saxaaba yi waaye su leen fi fekkoon na ngeen ko muslu ci nangam ak nangam di leen jàngal ñaan gi nga xam ne moom ngay wax sooy muslu dajjal dajjal moomu nituk la koo xam ne su dikkee day woo nit ñi ngir ñu gëm ko di leen war itam ne yàlla la day woote ci boppam carrément ne yàlla la am nit ñu koy topp di leen won ci xeeti kéemaan yitam yoo xam ne kum fekkul nga yor pas-pas bu dëgër mën nga koo topp day wone àjjana di wone sawara di rey ay nit di leen dekkal ñuy gis yooyu nag fitna la kooku nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla aar na makka ak madina ba dajjal moomu du fa dugg ci xadisu anas ibn malik yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa min balad nee na amul benn dëkk ci kaw suuf illa sa yatauhu dajjal lu dul dëkk boobee dajjal dana fa dem ci kaw suuf dëkk yépp illa makkata wal madina ba mu des ñaari dëkk yooyu muy makka ak madina xadis boobu mi ngi ci buxaari xadis abu bakra daf ne dajjal du dugg ci dëkk yooyu bu bis boobaa juróom-ñaari bunt la dëkk bu ci nekk di am Màkka ak màddina bu ci ne juróom-ñaari bunt yu ñuy jaare dafa dugg lay am benn bunt bu ne ñaari malaaka ñooy taxaw bi ko garde kon foofu moom du fa dugg beneen bi daf caa teg mu ne dajjaal du fa dugg waaye taaxoon yi du fa dugg taaxoon mooy lan mooy bépp xeetu feebar boo xam ne bu ñëwee day matale feebar yu tasaaro yu gaaw yooyu wàlle mel ne ay choléra mel ne feebar yu siiw yi ñuy wax jóge ci ay mbaam xoox ak yooyu yëpp ñooyam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee feebar bu mel noona du dugg Madina tey du dugg Makka kon jullit yi nga xam ne dañoo fogaru di waaj fas yéene dem aji néegub yàlla seenu wàccirlu ci yàlla ak seen ngëm war naa àgg ci ñu gëm ne ñaari dëkk yooyu caaxaan yu mel du fa dugg loolu dañ ko war a gëm yóbbaale ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax te xam du dañ dëgg la nag fogaru moom ci ab jullit ak lu mu mën a doon lu jaadu la ci digle ya ñuy wax ndax su feebar xewul woon dara amut it jullit bi moom seet la war a def loolu la ko diineem digal euh, febu la war a def loolu la ko diineem digal waaye ñu xam ne yooyu ñuy tasaare ak di ko tiidloo nit ñi ay mbir la yoo xam ne yu tegul fenn la te du tee jullit yi dox seen aajo ji nga xam ne dafa aju ci seen diine kenn ku nekk xam na ne ay pexe ngi ci biir yoo xam ne yu jéggi dayo la yoo xam ne ñoom ñi ko defar ci seen bopp ñi ngi taxaw di ko dénoncer seen bopp di wax lu tax am na médecin bu mag boo xam ne ab américain la fan yii rek feeñ na ci lenn ci télévision yi di wax feebar boobu ñi ko defar ci boppam virus bi nga xam ne mooy dem ci nit ñi di leen dugg wane ne dafa am ay nit ñoo xam ne ci biir Amérique lañ nekk yoo xam ne ñoo ko defar tasaare ko ci jaww ji ngir bëgg a mën a jaay ay ñàkk te kooku boroom xam-xam bu mag la boo xam ne ci wàllu médecine euh, du ko ndaw mu te ne ñàkk yiñ defar di ko ko faje sax nag moo yées feebar bi ci boppam lañ ci jublu rek mooy na seen société lañ soxla ci société bi doon bëgg a daanu te xam ne liggéey ay garab moo ko taxoon a jóg na mën a liggéey ay garab bam ba jaar ñaareel bi mu teg ci ne ab kuréel lañ bu ne ci kaw suuf ñooñu boo xam ne dañoo gëm ne pour dund gi ci suuf gi ci kaw suuf mën a neex faw ñu wàññi doomu aadama yi nee na ñooñu loolu mooy seen pas-pas kon kuréel bu bon lañ boo xam ne ci biir Amérique la ñuy dund ñoo defar lu mel noonu di ko tiitali nit ñi waaye jullit ba moom ne loolu du ko te euh, defi farataam yal na yàlla aar képp koo xam ne jóg ne di joxe ji farataam